jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëfe xaadimu rasool jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëfe xaadim rasool cheikh bamba yaay sunu assurance bamba say ndimbal raw ay finance sëñ bamba yow la nu jox sunu confiance jaajëfati xaadim rasool am la moo gën am ay licence bamba weddi laa doy na ñàkk chance sëñ moroom doo concurrence mbërum yàllay xaadim rasool wuy si laa nu gënal audience bamba doonte day palais présidence sëñ Gabon walla bu France yaa nu gënal xaadim rasool cheikh bamba moom non violence. bamba. la woote di jëf ne silence. sëñ bamba. moo tax murit amul tendance. nañu sant Xaadimu Rasuul sag wallu raw na ambulance bamba sag dégg raw na fréquence sëñ ma doonoon sa résidence surveillé cey xaadim rasool tubaab yi ñoom dañ la daan menace bamba buur yi fi ne daan la offense sëñ wuloo woon benn défense budul yónneen xaadim rasool gaa basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor xaadim rasool cay sëriñ tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñépp toog di assistance ngir bëgg la xaadim rasool lii rekk doy na prudence bamba seen yéene mooy xañ la cadence sëñ bamba océan bële ku ñu fa relance ca gabaw nga xam ne doo xaadim rasool yoneen bi mooy sa référence bamba amoo defet yow bay laaj revanche bamba santati nañ la sa souciance naan jërëjëf xaadim rasool seex bamba yaay suñ confidence bamba murito raw na te gis présence ummanti doon say kër mooy suñuy agence bamba say xasidaay suñ opulence sëñ bamba la woote du ambiance borom safar xamuñu sa morom xaadim rasool yaay sunu autosuffisance bamba yow yaa woote conférence bu kenn toog naan day patience ngir bamba mooy doon nay rasool ngir xut buy yaa caas ak bamba nga leen rawoon yaay croyance sëñ Bamba sa mbir dee xel mënu ko science yaa yéeme yow xaadimu rasool am di Moustapha Bamba sunu assurance